Habib gis naa ba tàyyi muy def loo xamante ni si daf koy jël jëme ko ci jaami yàlla yi jëme ko ci askan wi nga xam ne ñoo nekk ci Thiès kon su lu mel nii xewee lu mel nii am Habib jëlat lii defati ko fii dañuy wax ne lii laa xaroo mënta ñàkk waaye lu yàggoon a am la Thiès nag nit ñi nañu bàyyi suñu so suñu soxlaa nit ñi daw wut si nit ñi bu ñu paree ci nit ñi bàyyi fi nit ñi daw làqutu ji nañu ko bàyyi Thiès lañu dëkk su élection jotee ñu gis leen fi mu nekk fii réew mi toll ku ci yor lu ëpp sa soxla war nga koo génn bokkook jaami yàlla yi. ku yàlla jox lu ëpp sa soxla def la séddale loo mais ñi nga xamante ni si yor nañ ay ndombay tànk lenn te dëkk ci dëkk bi ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ yor loo xam ne mën nañ ci séddale yàlla man amila saaleen fali si kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def sa bopp. gis nga Habib lii mu jël tey di ko jox jaami yàlla yi bu ëllëgee kenn du ko jox téere kenn. ci téere jëfam lañ koy def beneen bi ci desit nit ñi yeewu nañ léegi képp koo xam ne bu ñu soxlaa gis la buñ la wooyee nga wuyu leen loo yor bokkook ñoom boo leen soxlaa ñu ñëw wuy si la waaye képp ku ko dul def boo wootee kenn dootu la wuy si dama ne politique amul ñaan ñaag la am ku la ci ñaagalut bàyyi ko fi ab sëriñ amul ñaag ñaan la am kon Habib nii mu def nii lenn ci dëkk bi di ko def yor ay mouvement ñenn ñi di ko def ñi ci des euh, président jox leen ay ndombay tànk lenn ci ñoom di ko def ñooñu dañu leen di sant ñi ko deful it man gërëmuma leen Habib mii nga xam ne daal def na ko moom ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ñu dellu di santaat monsieur Habib Niang ndax chaque fois heure bu ñu nekkee ci tiis wala naqar moom la ñuy gis au niveau Thiessois. koor dañuy jox suukaru koor xarit cere tamxarit lépp lu ah, lépp luy social Habib mi ngi koy dund ak ñun au niveau de nos quartiers man présidente groupement la en même temps damaa yar yeneen groupement yoo xam ne ñu ngi au niveau Médina Fall mais jooyu nu benn autorité ndax monsieur Habib Niang ñi ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal réussite totale li mu bëgg ci maire bii di zone nord yàlla defal ko ko te incha allah yàlla dina ko ko defal ndax ndam la soxla te ndam dina ko am ndax politique pour politique euh, politicienne ah, da fay politique pour dundal askan wi lepp lu war rek ci askan wi mi ngi koy def te doonagul mer ci mouvement bi dafa doon mouvement bu xamne ne liko li ko composé lu bëri si ay jigen la jigen ñu bari ay jambal lañu ay brave femme lañu sa yu ñu xëyee dañu taal sen euh, yore sen sen yore sen siwo yore sen table de masse di jaay ji comme yalla def na musib bi ñëw na nag ku ci nek da nga war fagaru c'est pour ça man sama bop duma tok ci di sama jënd di torox di seetaan sama jigen di son nga xamne ne yu mu len wowe rek

ma seen ñu daar yaa ngi fi ñoom aussi tamit incha allah rabi dinañ def ndimbal mooy jeunesse yi seen bopp tamit ñoom ñii seen bopp def nañu benn ko bouclier à de lundi mardi dañu war a circuler biir seen yëpp di jàppale jox kër kër daara bu si nekk nag ni wàcce fa ñaari sàkku ceeb